asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen bokki Tayba yi fi teew yépp Cheikh Ahmadul Badawi nee na mi ngi yëkkati ci turu boppam ak turu mbooleem ñi nga xam ne dafa bokk ak ñoom askanu Tayba ci seen wayjur wu jigéen bokk ci askanu Tayba yi ca jiital nag ki nga xam ne tey mooy njabootuk magam bu ñu xoolee wàllu Tayba wi donte way juram la bu ñu toolee xoolee wàllu Maam Mor Anta Sali muy Cheikh Mouhamadoul Habib ak Cheikh Abdoul Khoudous ak Serigne Mahmoudan noonu itam la ko yégale ci ñi nga xam ne ñooy njabootuk ba nga nekk Daaru Salaam ak kër Serigne Afiya ak kër sëriñ ma sàmba ak mboolem kër yi Maam Mor Anta Sali yëpp ak mboolem kër yi Seexal Xadim yëpp ndax askanu tey ba amul benn kër ci kër yi Maam Mor Anta yi boo xam ne ay sëtam néewu fa amul benn kër ci kër sëriñ Touba yi boo xam ne ay sëtam néewu fa kon nag Cheikh Ahmadou Badawi nee na ci seen tur ñoom ñëpp moom mi leen fi wuutu mi ngi yëkkati cantam ak ngërëmam di ko jëmee ci yéen askanu Tayba yépp di jël cant googu nag di ko teg ci loxol nijaayam jii toog di maam sëriñ Jaxate mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Mirina Sill waaye mën nañoo waxit ne mooy xalifa sëriñ Tayba Dakar ma du nume maar kon sëriñ Ahmad nee na mu ngi leen di sant bu baax di xam ne di leen xamal ne ñoom day sant nañ yàlla bu baax ci bi leen yàlla boole ci askanu Tayba ndax euh, sagal ngeen leen siggal ngeen leen te itam moom ci boppam nee na mi ngi leen di beral cantuk boppam ndax xam na cër bi nga xam ne moom ngeen ko sédd ba bisam bii nga xam ne maanaam bis gënu ko kawe ci moom muy bisu Cheikh Mouhamadou Fadil bii di Kazu Rajab taxawaay ba ngeen ca am ba bu agsee yéen ñëpp ngeen dajaloo ko ñëw wàcc fa ay kaamil def fa ay ñaan ñaanal ko nee na loolu lu rëy la ci moom ba tax na mi ngi profité ci bis bii nga xam ne ñëpp teew na di seedeel askanu Tayba wépp ne lii ngeen koy defal daal te ña koy def wuuti ci ña nga xam ne teewuñu fa waaye fañ nekk ña nga yóbbante seeni i ñaan suñu ama nee na mi ngi leen di sant ci loolu bu baax a baax a baax di sàkku nag ngeen ñaanal ko ba liggéey bu bii nga xam ne moom la ko am Cheikh Mouhamadoul taxaa dénk te mu mel ni Cheikh Mouhamadou Mountakha dafa am lu bari lu mu bàyyi xel te xam naa ne bokk na ci lam bàyyi xel moo di suñ Mor Anta Sali kët moo ko suñ Taïba Dakar Madina maar ñoo àndan gàddaay gannaaw buñ jógee ci daara yi ki ñu tuddee maam Serigne Deqale mii tey muy Serigne Deqale gannaaw bañ ca jógee ñoo gàddan dem gàddaay dem Saalum ngir jàngi waaye sàkku ji barke ndax euh, jëmm jëfatëdan day ku am xam-xam waaye ku barkeel mu ñaanan bañ fay jóge ne moom yàlla jox ko doom de waaye gërëm na ñaar ñii gërëm goo xam ne ñaan na boroomam barkeb xam-xamam bii ak lam àndal lépp wàcc ci ñoom tasaaroo ci ñoom kon nag tey jëmm jooju tey su fekkee ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha tey dafa jël daara ji dénk ko koo xam ne sëtub sëñ Madou Ndoumé Mar direct la ndax maamam sëñ Madou Ndoumé Mar a ko jur waaye nekkit sëtub suñ war anta sëri direct loolu kon dafa am loo xam ne sëñ Mountakha kon bàyyiwaale na ko xel kon nag bu muy sàkku ngeen jaaral ko ci dar barkeb tey ba yàlla defal ko ndam ci lii mi ngi sant nag bu baax ñépp góor ak jigéen ci turu nag mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal askanu Tayba tañ sëtoo ci Mbakke di leen seedeel ak seenu cant ak seenu ngërëm ak sagu guñ leen di sagoo di ñaan yàlla sàmmal leen bokk gi sàmmal leen kóllëre yi waaye li nga xam ne itam moom la kii di jëwriñ jii di wax nee na ñu bàyyi ci xel bu baax mu di jëwriñ ji ñu dénk liggéey bi muy maam Thierno ndax nag mbooloo mu ànd mu nekk kat tey dox la koy doxal ay koppar la kon nag bokk na ci liggéeyu mbooloo ak daayira ak bu mën a doon ñu fexe ba intégré ci biir seen programme loo xam ne lu jëm ci xëyum ndaw ñi ak loo xam ne lu jëm ci luy mën a jur as soo xam ne projet yi ñu am yépp maanaam dañ ko ci mën a sukkandiku ci loolu réaliser ko kenn ku nekkit fa nga nekk solidarité bi war a am seen biir ñu mën koo am ba lépp lu ci waaye xew la ñëpp mën cee taxaw ba tax na kon projet yooyu nga xam ne wax sumb na ko te lu ci nekk lu ne moo wax ne dana ca taxaw jàppale leen ca bu baax rawatina bi mu mujj wax bokk na ci bi ma marqué mooy këri ba yépp ña nga xam ne yàlla dogal na ña nga fa dëkk ya di dundal cosaan la boole jàngale ak jàng ak bay di dunde at mel na mu nekk moom ci ay pexe mu wutal leen aw jiwu xëy na ak engrais sax bu ca ànd donte bëri ko gerte la ñu ji ko fa. mu nekk tool àllarba tey ba la ca ñore lépp ñu jël ko dugal ko ci biir liggéey bi loolu lu am solo la loolu projet la bu am solo boo xam ne bokk na ci li ma gën a marqué ci li mu wax yàlla na ko ci yàlla defal tawfiya kon sëñ Ahmad nee na mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi leen di soññi ci ñu bàyyi xel ci loolu xam ne loolu lu am solo muy mutuelle boobu même bu ñu amee mutuelle de santé lépp kenn ku am nag mën cee dugal sa loxo eh, ngir mu mën a dox sëriñ Axma mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla defal leen tawféex wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alal boroom kàddu yi ñu la dénk ci jokk bokk gi xam la ci sax xam ak bëggu bokk moo tax ñu jox la ko ma jox sañ Modou rek mu am tuuti lu mu leeral. waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyuwaat di leen siyaarewaat bu baax di jégalu ci kàddu yi ñuy jëlaat. waaye day ndigal rek lu nu jox mu doon nag kàddu yi cant yoo xam ne jaadu nañu béral ko ci barab bi ngir ñëpp déggandoo ko xame ko noonu te loolu itam mooy alhamdulillah rabil alamin barab bi nga xam ne fi la ñu tey ci péncum sëriñ Souhaïbou bi ku nekk xam na ne fii neex naa ñëw macha allah te gis nañ ne mi ngi doon taw léegi waaye amuñu benn jafe-jafe naka noonu itam luñ fi indi ci mbooloo it alhamdulilah. te ku ne xam na ne baas bii tey soo ko doon luye lu mu néew néew danga ci def lu ëpp téeméeri junni di wéy waaye ànd ak loolu lépp nag ki nga xam ne ci moom la yàlla jaarale ak jàpp ndalam ba nu jot ci te yàlla dogal amuñ ci benn jafe-jafe fayuñ ci benn dërëm jaadu nañu seereel ko mbooloo mi waaye sàkk yu itam mbooloo mi ñaanal ko xam ne ko am yéene ci askanu Taïba la kooku mooy kan soxna Ami Sill bintu sëriñ Mokhtar Penda Syll moom sëñ Mirina bi nga xam ne yàlla dogal na ñu daan daje ci mbaarum Daaru Xudduus ku ne xam na ne foofa xaw naa xat pour dem waaye naka noonu ñu amoon jafe-jafe ci wàllu sonorisation ndax daanañ fa daje ba ñibbi muy jotaay bu riis waaye kenn du mën a wax ne lenn lañ fa doon waxtaane boo ñibbee pexe mooy def nañ ko waaye rajo yi day am problème ñu ne ko léegi faw ñu xool foo xam ne léegi fa la ñuy daje ngir am ci loolu solution bi ndaje mi dëgmal si. bi ñu tolloo ci di ci xalaat di xalaat fan lañ war a luyee baas ak fan lañ ko war a mën amee baas boo xam ne dana mel niñ ko soxlaa bi yàlla dogalee loolu dugg ci nopp soxna Ami Syll mu dox ci ay jéego yu am solo ànd ko ak ay ak Serigne Baara ibnu Serigne bi Serigne ñoom ñaar ñooñu ànd ko ak seen waajur wii di soxna Ami Syll dox ci ay jéego dox ci lépp luñ ci war a dox ba ñu xamal ñu nañu incha allahu taala man ngeen ko defee ci mbaaru bii nga xam ne fi la Hizbut Tarqiyyah nekkoon te biñ leen waxee ni leen ndax am na luñ ci war a warlu dañoo wax nañu bu fekkee war nañ cee fay téeméeri junni mbaa million seen yoon nekku ci ndox muy naan sax agee ci aju yooyu danañ sa danañ ko sàkk indiwaale ko waaye dërëm du ko ci def kon loolu jaar nañu seedeel ko mbooloo mi waaye sakk yu ñaanal leen yàlla defal leen tawféex dëgëral leen ndax ñu am yéen ci askanu Taïba lii kon ñëpp lañ ko defal jërëjëf kon soxna Ami Sylla ñoo ngi la yóbbante ak ci sëriñ Mouhamadul Mourtada ak euh, sëñ Mouhamadul Lamine Baara ñi nga xam ne leeri sëriñ Sohaay ba lañ leen ñaanal yàlla leen yàlla defal barke ci barke borom tubaa euh, ginnaaw loolu yi ñuy sant bu baax sëriñ Fallou Sile maxtaar ndax moom itam ku ne xam na ne wàllu organisation bi euh, moom lañ def mu pësteefam ak yéen a ji am ci askanu ba tax na ñu tab ko ne lépp lu ci aju yow lañ ci jiital te muy kilifa waaye foo xam ne incha allahu taala bagaa suñ fa war a indi ak lépp luñ fa war a sama dongo yii ñoom laa yebal ñoom ñoo ko yewoon indi ko noonu la ko defee itam ànd ko ak sëñ Maxtaar Jobe mi nga xam ne mi ngi ciy déggante ak moom boobu ba léegi ko loolu jaadu ñu seedeel ko mbooloo mi ndax ku am yéene la ci askan wi ku ci nangoo sonn la ku ci teg bëtam fu sori la kon cant yooyu lañ ne woon nañ ko koy seedeel mbooloo mi ngeen xamee ko noonu wasalaamaaleykum wa rahmatullah aousu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa ma tawfiqi illa billah asalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbooloo mi fi daje mépp di jiite ci nuyoo bi sëriñ mun Muntaxa mi jiite kër sëriñ Touba gépp di ñaan ab yataayam yàlla gën koo yàggal lool te defal ko ak wér tey ñaan yàlla bàyyi na ci gannaaw itam lu yàgg te defal na ak wér di ci teg suñu kilifa bokk di suñu wajur sëriñ Deqale Sill mu ngi nii toog ci biir jataay bi di jëmmi sëriñ Mirina yëkkati kàddu nag boo xam ne danaa tuut sax ci war koo yëkkati waaye nag dañuy wax ne barab bu nekk la fa nekk rek moo fa nekk sëriñ Cheikh Astou Faye ak njaboot ak soxna Marème Balla gépp te dañu nekk Daaru Muxti muy kër sëriñ Mouhamadul Habib ni ko Balla Samb waxe kër sëriñ Abdoul Khodos kër sëriñ Mahmoudan ñoo sàkk seeni ndaw yabal leen fi man ne naa ànd ak ñoom ñëw yëkkatil fi seen kàddu muy kàddu yi cant ak kàddu yi ngërëm yoo xam ne nii yu sori ci ñoom la sëriñ Seex wax na ne bu ñu sakkee bis ci Tayba tudde ko soxna Marème Balla dafay mel ne dañooy jëlaat jëf jë sëriñ mbir ma jëfan jëme ko ci kër maam Thierno kon lenn kenn waru cee dem lépp ñoom la war warteef nag loo ko xam-xam te nanga ko yéenee ne xëy na sa man-man àggu ca da wane fa nga mën a yem rek wante sedduñ ci kenn dara jàpp nañu lépp ñoo ko moom wane nañ ko baax itam nag ndax ñetti buntu kër yi ma tudd muy kër sëriñ Mouhamadul Habib kër sëriñ Abdoul Koudos ak kër sëriñ Mahmoudan kër gu nekk sëkk ab délégation jóge na fa ñëw ànd ak man teewal seen fii te ñoo ñuy yebal bu ci kenn képp dikkan rek mu doy sëkk waaye xër guñ ci xiir xër moo tax ñu defee ko noonu muy sant nag ahlu ba yëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul góor bàyyiwul jigéen sëñ Cheikh wax na ne mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp mi ngi xamal ñëpp ne mboolem ko bokk ci soxna Mareem Balla te nekk Daaru Muxti wala nga bokk ci te nekk faneen tey wéy ci ndigalam lépp lu silatu rahim nekk rek nanga nga nekk ñoom te ca loola ndigal loolu joxe na ko moom it wax na ni lu ci mën a teewe dana ko ci teewe lu mu ci mën teewee dana yebal ak njabootam ñu ñëw fas ko fas ko fa yéene nekkal loolu it defe naa nit mënta weesu loolu ci wane yéene waaw ah ñi mu yebal nag bu jar di lim seen i tur wante Balla Samb dana ko gën a leeral bu baax a baax li ñuy joxe mi ngi nii ak man danaa ko teg ci loxol sëriñ Kàbbu Sill mu teg ko ci loxol maam Thierno ñu ñu def ko ci liggéey bi mu fas yéene nag muy ab tàmbali ci njaboot ak soxna Marème Balla Sill gi nekk Daaru Muxti gépp ba fo ba seen dund fu mën a yem lépp lu ñàkk rek ña nga ànd na ñoom ca loola ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. di baalu àq ñëpp wa aleykum salaam wa maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di la jël nuyoo bi teg ko ci loxol kilifa jataay bi Cheikh Mouhamadoul Badawi mu jàllaleel ñu ko ci kull koo xamante ne bii mi ngi dégg suñu kàddu ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp sant ñëpp xam naa kàddu yi kàddu yi cant rek lay doon ak soññee soññee gi mooy cellules yi nga xamante ne bii ñoo composé association bi boo demee ca Taïba ya cellule ba fa nekk nga dem Dakar am na sellil bu fa nekk nga dem Tamba am na cellule bu fa nekk nga dem Mbuur am na sellil bu fa nekk nga dem Daaru Muxti am na cellule bu fa nekk nga ñëw fii tuuba am na cellule bu fa nekk ak suñu mbokki mbambiloor yi ñooñu ñëpp nekk ay cellules yoo xamante ne bii ñoo composé association bi kenn ku ci nekk nag yaa ngi góor loo man di teewal sa liggéey kon nag li ñuy leen di wax rek mooy kon noonu ko président Mame na waxe laa bëgg ñëpp bàyyi ko xel ndax Mame na nee na dafa bëgg liggéey bi ñu renouveler waat ko gën koo yeesal niñ koy yeesale nag mooy cellule bu ci nekk dañ fay taxawal benn crédit boo xamante ne bii crédit mutuel lay doon nga xamante ne bii mbooleem ñi bokk ci asos bi dañ fay dugal seeni weccet bu événement ñëwee ñu couvrir leen motiver leen ba nga xamante ne bii luñ soxla ci ay matériel dinañ ko mën a jëndal seen bopp jaayante ko ci seen biir nga xam ne asos bi du nekk loo xamante ne day leble xaalis ndax leble xaalis euh, bu fekkee day am intérêt day daal di doon lu araam waaye day doon loo xamante ne bi chaque fois day am ay matériels yoo xam ne soxla yi dañ koy soxla ci seen biir ñu leen koy jaayee prix bu yomb ba noppi di ci am bénéfice nga xam dañ ci am ñaari yoon bénéfice kon loolu mooy li nga xamante ni moom la maam Thierno wiise loolu mu wiise nag en tant que président na ko ci ñëpp jàppale yéen ñi nga xam ne yéen chef de cellule yi na ngeen gën a encourager seen i njaboot ba nga xamante ne bi loolu dinañ ko mën a euh, exploité ba ca topp xam naa dañuy gàttal rek ndax euh, waxtu wi guddi na teral rek mooy waa sëñ Mor Sill njabootam soxna Bomba Sill ak sëñ Seex Sill mi nga xamante ne bii mooy kilifaam ñooñu teew nañ ñoom nag sëñ moor moom wax dëgg yàlla ak ñoom ñëpp ñoom waa moom gàcce ngaalama parce que ba asos bi sosoo ba léegi ñoom kenn mënu leen ci te mosu ñoo des ginnaaw benn yoon waaw sëñ Fallou Gala Sylla dañ koy dañ ci profitoo di ko gërëm bu baax a baax ndax yónnee na ab sitam ñu ñëw couvrir kii bi yëpp ànd ak rajo beeg ak télévision bi yëpp couvrir événement bi yëpp ba mu jeex te itam yëkkati na addiya joxe ko fii boo xamante ne bii maanaam pour ak jaayanteem la kon moom itam dañ koy gërëm bu baax a baax tey ñaanal ñëpp rek wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. du Syll xalifa askanu Taïba bi. mu jël ndigal ci Baye Ndiaga Maram Sill mi nga xam ne it mooy jëwriñu baay Modou ci kàddu yoo xamante ni yii dafa santaane woon ne bu ñëwee ci baas bi mu jot li ko mbooloo mi tekk ci loxol Baye Deqali mu tisaare ko mboolem bokk yi nga xam ne ñoo fi daje. Baye Modou Sill nee na mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaare waaye di nuyu Serigne Kabou Sill mi nga xam ne mooy jiite woon association bi waaye di nuyu sëñ Maam Thierno mi nga xam ne it moom lañ teg liggéey bi ci loxoom di nuyu soxna yi ñu ko àndal ak mboolem njaboot gi. Baye Modou wax ne mi ngi sant yàlla bu baax di sant Serigne Touba di sant sëriñ Kab ak équipe bi mu àndalan ci liggéey bi nga xam ne ñu ko liggéey ci askanu Taïba waaye di sant bu baax Serigne Mame si li mi nga xam ne aw doxinam ñëpp xamoon nañ ko démb ban jébbal ko liggéey bii di leen ñaanal rek ngeen daje ci ak ngërëmul yàlla sunu borom ci li weesu ak ci li nga xam ne moom ngeen dëgmal yàlla dëgëral leen ba ni ngeen ko bëggee ngeen ma ko noonu bu ngeen ko gisee ak bu ngeen ko gisee li nga xam ne ñaanam mi ngi ci yéen doxin wi rafetoon na démb tey jii door a ñëw kon mu ngi leen sant di leen gërëm xam naa loolu rek lañ ci lañ ci doon jottali kon jërë ngeen jëf. tawat yow joo xamante bii ne jekku na sa njaboot te bëggoo njaboot gi jeex walla nga def ci dëkk dend ak mbindee moo xamante bii ne yàllaa ko sakk te am na lu muy def loo xam mënoo ca dara nga dem bàyyi ko fa lu ma di xaw jàmm daal moom ba muy gàddaay fit a tax a gàddaay ak jom angor ba mu gàddaayee na ba mu gàddaayee nan la def dafa dëkk ñu wax ba ngaaj sàmb lam fa def képp ku toll ci tukki war ngaa roy ci maam Maxtaar Demba ndax bokk ci ay bokk yoo xam saa boo leen tuddee luñ seen tuddee lu loo gis lu baax dalay bett nga daan leen ñaar téeméeri kilomètre dugg ci ñoo xamante bii ne kenn xamul la fa nga toog ba yàgg ñoom waa dëkk ba ñu ne jàkka jaa ngi nii ñu toog ba yàgg ñu ne waa dëkk ba xale yi jàngal ñi ngi nii ñu toog ba yàgg ñuy wut seen borom ñu ni ñi ngi nii mu sax ca loola sax ca loola sax ca loola nekk réseau de Thiès ndax maam maa tax da ngeen xam ne ba mu gàddaayee askanu Taïba te kaatut tànkam ci saayir ci suufu ba ma nga ma nga Thiès kon lan moo tax ak njabootam jëpp nekk ci département Diourbel loolu lu jar waxtaane la lu adduna soxla la lu ñu war a xam la ndax ma nga cees moom te dellu si wut njabootam gépp ñu ngi département Diourbel te génnuñu ko la war a loolu kon lu ñu waxtaane la lu jaar roy la lu jama soxna la ndax génn xew na te it génn fekke amoo ko la toppatoo sànq mën na caa bay ko moom na yàlla too fee xel na ko ba mu génnee yàgg fa lool yàlla jox na ko bokk moo xamante bii ne ak bokk lu ne jaaral na ko ko muy sëñ Mira Sill moo toog ba yàgg mu takk ànd ak ñamaar àndal di takk ka tekki di takk ka tekki di takk ka tekki bàgg bagaaj damay xam ne Mamataar daanaka mbiram boo koy waxtaanee boo nee yoon sëñ Mira rek ci yoon nga ci teg dara tax ko doon sëñ Mira na su tekkee fosam dox ñaar téeméeri kilomètre ka ko tax a jóg daanaka mënatu a teg ca jéego yooyee lu lu lu ko gën a kawe kon rek loolu dañu sëkk ci sëñ na jóg gëm jóg rek fekki Maam dem ba di ko jëli loolu moom loo wax wax wax wax day mel ni euh, da ngay da ngay suul say wax mais mun laa ko jéew si mbir ne mais ba mu demee gis Maam Matar waxtaan ak moom ne ko manga sore nga askan wi yaa ma tax a jóg Maam Matar lan la ko tontu da ko ne man raw naa ndax ñii nga seen maa leen di xamal jàkka ji maa ko jiite néew yi maa leen di jullee waaye lan la ko mamataar defal mamataar booy seet ku gëm yàlla boo nee benn mamataar bala ngaa ñaare dana sori lu mu def dafa daal woo kenn ca des muy soxna bi nga xay moom maam xadi sill ak maam mariam sill ñoo bokk ndey ak bàyyi fekk boobu mamataar joxe na ko ci ñu sant loo ñu wax daaru loo mu def di liggéey la boromam waaye kur soxna bi sill mamatar woo na la ba nga ñëw sëñ bi na toog njaboot gi toog mamatar ñaanal leen ñu woon ko ginnaaw te bu leen gisaatee yomal xiyam la kon kuy bëgg simir na ak ku wóolu jotoo mamataar fenn ndax doom doom jojur sax suy jànge alxuraan guddi gi muy jànge ji guddi googu doo nelaw soo wonee ginnaaw sam xel dana soof lool yow nga sa njaboot gépp bay woo kenn di góor di jigéen ñaanal leen tekki doxal nit ñu war la ginnaaw te boo gisaatee yomal xiyam la loolu lu jafe la waaye nag ñaari baatin feeñ ci bi ci njëkk jabar googu gépp amu ci kenn koo xamante bii ne bala sëñ bi ne yóbboo sam xel nekkaat na ci mamata dem nga ne maa ngi seet sama baay déedéet amu ci kenn ko doxat ba ñam sëñ bi amu ci kenn koo xamante bii ne delluwaat nga ba ne maa ngi seeti Maam kon loolu baatin la ca tab bi waaye sëñ bi ba mu dikkee nan la def mboole seen jabar mamataar demba bàyyi fan moo ma ko moo ma ko nettali ci loo xam ne mëtul ñetti weer ak bi mu mu ne bi nga sa simire dikk na bésu tey ba daxaar dafa taxaw ne maam Balla mi nga xëy moom mooy taw Mamatar Demba kaay mu ñëw mu dagg ci soo tey ba lu bari ne ko sëkkër baay ñoolu seddi lii sëkkër yaa ngi di ci sa kilimaan soo doyut ñu dolli la ndax ku jo seer siise moo jur Mamatar ku jo seer siise ka ko jur pend bi ma ko jur ma nga bàyyi ko ndogal sanc ñëw Ciise Kilimaan am Mariam ma Sill maam Mariam Cissé maam maam maam maam Balla ak ñama bokkal moo tax sa mbir na ko say bàll seddi lii sa kër ne yaa ngi di ciise soo doyut ñu dolli la suuf soosee tey mboolem loo xam ne yaay moo seen jur na ko ca la ñuy bay musaaka lum jur ca la ñuy bay te ña ngay booyal loolu la ko sa mbir njëkk a defal bi mu dikkee mu daal di jël njaboot gépp kenn ku ne mu wër ci am pénc moo xamante bii ne fekkoo fa kenn mamatar amul jenn doom joo xamante bii ne dangaa ñaareel yi kenn ku ne kër ga nga jiitu yaa fa jëkk te yàlla def na ca barke ba ma naa ne mbooleem penc tayba yi penc moo ca dem sëtam mamatar dem baa nga fa boo xam ne yàlla def na ca barke loolu xëy ma sëñ bi na xëyoon moo indi barke ba ndax sëñ bi na mooy xëy intérêt tax koo a jóg ndax mamatar du woon dëkkandoom ab dëkkam la sancoon mamatar du ab taalibeem mbokk ka ma woon ko bokke sagar moo tax yàlla wallu ko ci xëyma def ca barke boo xamante bii ne néewaana ku ko am ndax nee naa la ko mbooleem penc tey bi penc moo ci tudd soo ñëwee fii may sa tamama taa dee nga wax te kenn te ma ngi koy ci waaye sëñ bi yemul foofu de yemul foofu bi nga xamante ne yàlla dogal na maama Samba Sill mur sañ ma ndumbe ba ñëw mbuur ne am fa ak njaboot lii ma leen nettali sama yaay moom ma ko wax ma nga barab sàq du ma yokki waxam du ma ko wàññi ndax bëgguma ko lor nee na ba mu tàggoo sëñ miri fekk ab na nijaay Modou Khady Diop ne ko daa boo bëgg seet sama nijaay ma sàmba boobu wata am daramut pañe yu ñu daabee ndon ngay jël def say sër takk ci takk ci ñu yenu ko topp ci yow nijaay Modou Khady moo ko yenu pañeem miri na tànk ak tànk ba ñàkk ba mu tàggoo sëñ miri na boobu sëñ miri na amoon na yéene yi la mu defoon ca Mame Matar Demba mu def ko ci mama sàmbam waaye mënu ko ndax at mama sëñ bi na génn ko ca la génn àdduna waaye sama yaay fi la ko bàyyi ba muy dem sama day nee na ba ma tàggoo sañ ba ma tàggoo sëñ mbir na dama ne kaay mu yónne ci sëñ ma sàmba boo demee ne ko sabaay nee na nguusul ko ñeenti litre diw dafa am lu ma lay lu mu ba mu demee maama sàmba fa mu nekk ñu fa kenn ku sant sill nekk fa menn mbokk menn moom rek fa nekk yoon jobootu kese pàggute fa lan la ko jural dafa toog diir di yaay sañ xujj sill bàyyi koo mbuur dikk jënd kat fi yatam may ko soxna ami sill mu dëkk ak moom ñu toog ab diir ni yaay bàll sa la jóob bàyyi ko ngaay mexe dikk jënd kat fi yatam ak moom may ko soxna Fatma sill ñu toog ab diir kii jii sillu rahim muy sëy moodu sill mu sëy moo daa bàll wàcce ko mu dëkk mbuur may ko mambusa tey ab taawam xaadim xaadim sill tey mooy taab sëy moodu sill ma sëta mamata mamata demba kon jege dëkk say bokk dëkk say bokk say doom say say bokk sax yombul waxuma laa nga def say bokk ñett téeméeri kilomètre sa bokk yëpp jënd kër dend ak yow jël sa njaboot dëkk ak yow kooku baatin la seméro def na ko ba tey ci njabootam Matar Demba ñëwul foofu bàccee si nee ma ker ba nga xam man dama dalee jàng sama baay joxe ma kër moo siise ci si man fekk ma doomi nijaayam bokk seméro déggee tàggul ma balaay ku ñu wax yibra luum la yebal ne ko jaar ci àll bii boo demee nga dem Mor Cissé na ma jox sama doom yoonu ma ko yoonu ma ko ci sëñ bàcci ne bi mu dikkee maa ngi fekk ma bank sama tànk di wax baa siin miim mu ne ko sëñ bi nee na nga jox ko doom ji mu ne ko bàcc wéeral ji wéeral alawa ji mu ànd ak bàcc bàcc ànd ak moom dikk fi sëñ mbir na sañ bàcc ne dëkkam ak sëñ mbir na fukki fan yoo juróom-ñett fan yoo xamante bii ne nooy bokk fanaan nooy bokk yandu mais lan la ko jural sëñ bàcc àndoon kum jur al kum jur rek waaye yëmul ci lool de fii ci dëkk jënd fi kër gu seer tabax ko boo bokkam yëpp ak i doomam nee kër gi kër alxuraan la kon kooku la ko sëñ bi doon fàggul am na ko waaye yëmul te loola ab taawam bi nga xamante sët la ci maam Balla Sill mi nga xam mooy sëtëb maam Balla Sill kan moo ko yoroon su doomi sëñ Bassirou sëñ Moussa Mbacké loolu ba tey cër la boo xamante bi ne faggandiku la sëñ Moussa sa am na ci ñaari doom yu góor ak benn doom bu jigéen loolu yëpp pàggateef la kon loolu ndimbal loo xamante bii ne bu kuñ dimbalewut mënoo ko am waaye nag bi ñëwee tey ba kan mooy taw maam Matar Demba mooy maam Balla Syll maam Balla mooy taw maam Matar Demba bi mu dikkee la xewoon ba yooyu jamono mooy muritu ji wala nga jàng yi moom mu jàpp muritu ji dem ànd si mu dem xabaan muy liggéey de Sëñ Tuubaa ba liggéey ba àggee ba mu wàcce ko bi mu dikkee fekk na sëñ ma ndumee làqu waaye fekk na sëñ xabaan waaye la muy wéet wéet wéet wéet wéet teewul sëñ xabaan xam wàccuwaayu mambal la ba dagal ko 100 mètres carrés yoo xamante bii ne kuy kilifa mënoo ko weesu kuy seex mënoo ko weesu te bu génnee jàkkaarloog jumaa ji loolu da koy wan ne xam naa fa nga bokk xam naa la nga doon loolu la sëñ defal mam mambal la waaye mambal la ba mu jógee di takki soxna fan la dem kar xaali ma jaxate rakkam ju ñuy wax Amary Jaxate Amary ja Amary Jaxate la takk doomam Amary Jaxate ak max ak Xaalima Jaxate ñoo bokk baay moo takk doomam yu ñoo xam Mati Jaxate Mati Jaxate ba mu dikkee moo taawloo daam sill teg ca euh, euh, teg ca teg ca euh, nday ji nday gi nu mu tudd soxna mambaar la ñoo ñoo leen taawloo soxna Xadi Mbos tey moo jur euh, sëñ lu mi tey di doomi sëñ Mat Jee Mbakke waaye bam ba barakam matee tox na muy sëñ Fallu fan la dem dafa dem ka sëñ Misila Ndaak fekk am na jigéen joo xamante bii ne ma nga bàyyi koon barñi euh, ba nga euh, ndombur wàcc ka sëñ Misila Ndaak am fa ko la mu jël fot sill takkal ko sëñ Fallu mu am ci soxna Xadi sill ak ñi bokkal ñëpp nit ki nag na koy xamee mooy fa mu jële soxna fa doom sëy ñamuy àndal àndandoo mënu tawee sa mbir na fi la yem nee naa la loo wax wax wax wax day mel ni kàddu sa mbir na benn jégum képp benn jégum sa mbir na mun laa ko mukk lu ko dab kon ba sa mbir na takkee rek jëm ci Demba ngir jëli ko rek doy na sëkk ñu xam ba ba Matar ban paa la yor waaw loolu doy na sëkk ñu xam ma ma Matar bu loolu defee njabootam gépp itam noonu lañu àndee nekk benn bant nekk benn say nekk benn kii la ca dolli ko mooy kii fi toogal tey njiit askan wi muy nijaay sëriñ nijaay sëriñ kan bi nga xam mat naa xam lu alxuraan àgg fii ci réew mi xam-xam àgg fii ci réew mi sëñ Bakke da ko waajal mu dem bitim réew jàngi fa ba mu demee benn yóbbaale soxnaam wala soxnaam fekk na ko fa ba mel ni ku fa yàgg bëgg a joboot sëñ Mbàkke moo jël capital jox ko ay mukallaf jox ko jox ko ay mukallaf li leen dem na jël ma sëriñ andil ma ko fii bañ ko jëlee dafa jaar ñoom Touba wuti Taayif sëñ Mbàkke dugul ci biir këram néeg bi sa si néegam fa la ko joxam néeg ñuy fanaan guddi ak bëccëg ba mu noppee ci moom andi ko Touba jox ko école bii ne ko yaay directeur bi tey jii taab sëñ Moussa mi nga xam mooy si tey mooy mooy taab sëñ Mbàkke Soxoro tey mi ngi ko te ci loxol li yaa sëriñ mii tey nga xam mooy mooy ji tey kon euh, askanu Maam Maxtaar Demba kon Maam Maxtaar mbiram mu ngi ko waxtaane ba mu jeex day wax ne maanaa rek ba seen mën a jógee jëm ci moom rek doy na sëkk ñu xam Maam mooy kan kon noo ngi ñaan yàlla askan wi yàlla barkeel ko te dimbale leen te yaatal leen may sàkku nag di ñaan dimbal ci waxi sama doom doomi sëñ Balla ko ni mu wootee ci ñu taxu ci rahim bëgg naa képp ku bokk ci Maxtaar Demba ñi bokk Kawlax yow jii li digal naa la boo demee na nga woote daayira boo xaye seen rahim moo ko tax a jóg ngeen di dajaloo seet nan la ñu doxee ba ñu wax la ko nga jël seenu ñaq di ko ci dugal yéen ñi nekk mbuur sëñ xabaan yaa fa nekk digal naa la soo demee dajale leen ñuy waxtaan nga waxtaan ak ñii xam la tax seen wërsëg matab seen liggéey bii ña nekk Bangaaj nañ def noonu ña ki fii ci Touba Moustarchidine yaa ko jiite nañ def noonu noonu yàlla taxawal leen sàmm leen aar leen musal leen asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Euh, di leen baal àq di leen baal àq euh, di tàmbalee wax di ci sëñ Derklé si nga xam ne mooy xale bopp sëñ Mérina euh, di sunu waajur kàddu gi ñu fiy jël. ci turam lañ koy jël euh, mënuñu ko wante sañuñu koo bañ fi ñu koy tàmbalee nag moo di gannaaw bu ñu sant yàlla euh, julli seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, sant sunu wasila mi Xaadimu Rasuul am nañu cant lool te jii ndax waxtu wi daaw ba ñu koy def man maa nga ca ma la fa seeni hôpital ñëwuma fi woon kon nag dinaa yàlla may na ma ma fekkee ko ma ñëw ba fekkee ko ba ñëw tey ji sant ci bu baax a baax nuyoo bi nag noo koy tàmbali ci ki xam ne moo fi teewal moo fi teewal ci njabootu Serigne Touba di Serigne Ahmadou Badawiyu bokk itam ci famille Taïba ah ñoo koy jox nuyoo mu tegal ni ko ci loxo ki nga xam ne moo fi toogal Serigne Touba di sëñ Mountakha ah, mi nga xam ne mooy xalifa général di rit ak mboolem ñi mbokkal Serigne Touba eh, di ñaan yàlla guddal seeni fan lool wer seeni wéral seeni cër ba lii nga xam ne ñu moom lañu sumb mu liggéeyub Serigne Touba lépp sans boroom eggale ko te nu ànd ko yoom li ci bu loolu weesoo ah, noo ngi tàmbalee suñuy wax itam ci cant ñi nga xam ne ñoo fi nekkan yoroon liggéey bi muy kàbbu si li nga xam ne moo doon doonoon président bi ah, sama xel neexul waaye dégg naa Modou Syll wax léegi ne defe naa mat na fukki at bi mu ko rey ak léegi noo ngi leen di sant seen taxawaay rafet na ak équipe bi nga xam ne moom la àndaloon ñuy liggéey sonn nañu li ñu war a def lépp liñ ci mën def nañ ko bi ñu demee ba nga xam ne bii itam dañu ko war a yeesal ñu waxtaan seen biir ba wëlbati ko fab ko ci loxol teg ko ci loxol maam Thierno Sill maam Thierno Sill waajuróomu góor moo topp sama ndey man ñu bokk wenn wenn kon loolu man ku ci sant yaakaar naa ne maa la ci gën a sant euh, di ñaan maam Thierno euh, li ma lay xamal te di la ko wax te yaar yii moom yàlla bindewu ko euh, ba ma ko seetloo ba xàmme ba tey wax lu dëgg ak jay nit maam Thierno am nga wo sas maam Thierno am nga wo sas am nga sasu rëy rëy rëy ndax ta kàbb mii ak ñi mu àndal li nga xam ne jànkoonte nañoo moom ci fukki at yii ñu wëlbati ko fab ko teg ko loxo nga war koo jëmee ca kanam am nga wo sas waa nag yàlla mi nga xam ne mooy lépp mooy lépp di nekk di di di di benn buur di di kenn amul lu fi ñaareel ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Xaadimu Rasuul mi suñu yaakaar ak maam na Ibrahima mi nga xam ne moom lañ la tudde yàlla na la jàppale